Souleymane Cissé saison euh, gis nañu à euh, mi parcours euh, saison bu baax nga nekk def naka nga gisee sa première saison fi ci Jaraaf. wa sant yalla rek doli sant yalla rek quoi parce que c'est pas facile sama première année mo ñeu di di def saison bu baax parce que on yi jàppale nañ ma ci bu baax ancien yi tu vois dama ñeu ñu dalal ma xam xamal ma ni ko fi sa kër la ñëwal free quoi et tout motax tax ma ñëw rek adapté wu vite fait nii. d'accord ñu gis aussi à euh, mi-parcours une équipe mo nekkoon euh, mun naa ne moo nekkoon champion à mi-parcours euh, après phase retour bi ngeen enchaîné deux matchs nuls naka nga gérer pression bo en tant qu'attaquant. waaw sante yalla rek xam nga yàlla moo dogal phase aller bi que jaraf day nekk pé ñu santé ko. am am contact am am kontaan am tamit quoi mais phase retour yi bu ñëwee tamit ñaari match yi ñu tegale am ni la sant suñu borom bu baax parce que ñaari match yi bëggoon nañ ko gagné quoi vraiment mais lu yàlla dogal dañ koy sant quoi. kérok aussi ngeen gagné 3 buts à 0 face ak équipe bo xamné ki c'est une équipe joueuse équipe bo xam des jouer des day ballon académie la ngeen def exploit à l'extérieur gagné 3 buts à 0 est-ce qu'il que yaakaar nga maintenant da dafa retrouver rythme moom. waaw bien sûr bien sûr jaraf musul musul musul musul ñak rythme moom mais xam nga rek da ngay ñew nek ci ci match football joxewu lepp mais yalla bu waxé do gagné do gagné da ngay sante suñu borom mais kérok voilà l'équipe a montré une grande visage quoi malgré que ñu ngi football ak équipe académie ñu ngi téye bal leen ko téré quoi mais ñun suñu arme euh suñu arme ñu yoron woné nañ ko mom mo andi biti yépp ñu ngi sant suñu borom quoi. trois bi déjà si je me trompe pas euh ci saison bi euh saison bi euh, quatre bi wala quatre bi légui euh, ñu gis aussi amna ay buteur yo xamné ne déjà ñu jiit nañ la manam ku mel comme euh, Demba Ba Pikine am am six buts euh sa coéquipier mu am cinq buts muy muy Ameth Niang est-ce que yaakaar nga tu es bien parti pour pour faire partie des meilleurs buteurs. bah bien sûr parce que képp kuy attaquant da ngay ñaan yalla nek meilleur buteur té loolu lay ñaan suñu borom mais duma ko def sama bop non yef parce que avant avant individuel collectif le quoi euh, damay jàppale groupe bi ba paré après voilà soga soga soga a sama bop objectif bi ren bi moy nek meilleur buteur té gaay je je je pense que ñom Demba Baas deux bi lañ ma je pense deux bi lañ ma rey Mbaye Diack am huit bi et rien n'est encore joué des na dix journées tout est possible te am naa yaakaar ni ak dix journées di jeex di ngeen ma dégg si kaw bu soobee léegi lan mooy objectif personnel en tant que en tant que joueur mes na objectif. waaw waaw sama objectif personnel mooy xam nga bépp jour local buy jouer mi ngi ñaan yàlla dem football extérieur quoi ren jii nii loolu mooy sama objectif quoi xam nga def saison bu baax nekk parmi les meilleurs buteurs. Euh, décroché contrat dem football Europe quoi incha allah loolu. Euh, Sadio Mané. waaw c'est un exemple quoi pour nous waaw mooy sama idole quoi. merci.